Chamber taxaw seetlu. maa ngi dalal tey maire bi fekk ci juróom vraiment euh, mu dalal bi ñu ngi koy monsieur Ndao euh, ma maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp euh, je m'appelle Amadou Guèye man maay maire Ngor Amadou Guèye voilà. Amadou Guèye tey bu ñu fi ñëwee forcément on va parler du bilan ci relative bi ñu génn tey boo doon def bilan lan lay nekk. Hmm. waaw kontaan kontaan sant yàlla sant suñu waajur sant surtout waa Ngor. nii encore une fois ñu joxal ñu seen confiance ci élection yi ñu génn ñu gañ ñu gañ bu wér bu benn dara luñ ci laam-laam ñu gis ne euh, tas na ci sa bopp et tout ça malgré tout Ngor amul sax benn est am na benn doomu Ngor boo xam ne participé ci liste yi ñu nga ci doon séntu mais dañ la tapé euh, ba pare nga def ci lu ci woon nga def pourquoi waaw xam nga man je m'attendais même pas xaaru noonu sax nekk ci liste yi parce que président daf ma cëral bu pare parce que euh, euh, euh, comme maire là je fais partie aussi du haut conseil des collectivités territoriales donc je suis le président de la république donc comme il était normal que nous ñu président dans la majorité à l'Assemblée nationale wan nga ko ci magasin boobu noonu fii Ngor tey boo ñu defal boo doon defal état des lieux par rapport ak aussi fi joxoon par rapport ak électorat bi fi amoon et tout ça lan nga ñu mën a wax par rapport ak électorat bi taux tout ça. ah waaw taux bi baax na parce que ñun génn nañu benn taux cinquante quelques pour cent donc euh, taux bu baax la par rapport ak euh, kii inscrit yi euh, on a un taux de participation de cinquante trois et quelques pour cent. Euh, donc, euh, euh, mais ça ne reflète pas leur intérêt à l'ingoire parce qu'à y a des gens nous inscrivons et nous nous voté. On a des gens à présidentiel qui ont voté l'élection quoi. Mais le taux est là, il est, bas. non donc, mais nous, on s'en est. bien y bien des gens qui ont parce que nous, nous donnons presque 499 voix. donc euh, c' est pas négligeable waaw. Ah. na baaxul bon ci commune bu toll nii wax. su fekkoon ne exactement est ce que travail palpable bi nga xam ne waroon na am ci commune bi est ce que vous l' avez vous l' avez fait. waaw campagne bi rek avec du retard dañu xaw na am tuuti retard bi ñuy dugg ci campagne bi dañuy yéex a jot non seulement dañuy yéex a jot et puis am na éléments yu fi jaaree yi nga xam ne euh, xaw na wàññi suñu doole tuuti muy coow yi fi amoon coow suuf xam nga léegi boo suuf rek. dañu du ñu comprendre te fii dafa nekk dëkk boo xam ne ñu ne euh, nit ñi dañu gaaw a dem ci benn euh, euh, ci information yu jot rek dañ koy véhiculer te souvent day yàq lu bëri et c'est ce qui s'est passé kii problème mu Tobago bi andi lu coow ci dëkk bi mais. yàlla baax na daal ñoo ngi waxtaan ak autorité yi am naa yaakaar ne yàlla baax na daal. foofu sax dinañ dinañ ci ñëw quoi mais ñu ñëwaat ci ci ci élection yi ba euh, boo xoolee sax même sa euh, salle bu mu voté dañ ko dañ ko gagné et cela veut quoi. Hmm. ah man daal euh, foofu nag li ma ci mën a wax bari parce que man suma politique dafa nekk politique local dëggantaan man daal boo may séntu séntu moom diggante ma wakaan yoo hmm. mais bu ma paasee foofu rek. vraiment du ma mën a maîtriser éléments yi te wax loo xam ne nekkul daal te bëgguma wax waxu politicien. mais yemu ci moom rek ah. même yow sa bureau de vote dañu fi dóor. ah déedéet man suma bureau de vote yëpp maa ko gagné. non bureau bi nga voté yow bi nga voté dañ la fi gagné. déedéet déedéet bureau deux laa voté dañoo ñu ma voté bureau deux ñun ñoo ko gagné ñoo ko gagné de chiffre yaa ngi nii ah décembre moo ngi nii bureau deux ñun ñoo ah Chiffre gañe ñu moom de man gañe ñu ñu fenn waaw bureau de vote yëpp ñun ñoo leen gañe waaw mënuma comprendre nit koo xam ne dèjà dañ ko tëj ci kaso mu mu dem ba tawlal yéen doole day taxaw di wax ne moo gañe gañal yéen ngeen nekk ci ak ak ak ndomba tànk yi ngeen am yëpp ñi nga xam ne ñoo ngànk tey hmm. département de Dakar doon xëccoo ak ak benn nit boobu hmm. waaw loolu yëpp dañ koy def rek ci laabiru Sénégal ñun ñëpp xam nañu Sénégalais fii nan la ñuy fonctionné. non dafa am doole tamit. déedéet déedéet déedéet déedéet Aliou ñaar yoon nag nii mën naa ko gagné fii ci Ngor. waaw mën naa ko sa ñetti yoon nag nii maa koy. Ah, non xam nga xam nga Ngor c'est spécial parce que Ngor affaire mbokk la affaire. ah déedéet déedéet déedéet déedéet. waaw moom loolu moom mën nañu ko mën nañu ko séddi daal. ñoom bu ñu ànd ak yow daañu la voté bu ñu àndul ak yow. mais d' accord di nga d' accord ne du Amadou Ba mooy borom Dakar Khalifa Sall mooy borom Dakar. Khalifa dara la preuve gagné nañ ko moomul dara même bu nekk moom bu ñu naan dafa nekk ci kaso beeg yooyu yëpp moomul dara ñëpp xam nañ ne Sénégal il dafa gaaw a sot dafa gaaw a mer la mere pour nit. non est ce que nekkul tam bu mu liggéey Dakar moo tax. Ah, Khalifa lan la man day gis ma lu ñu liggéey ñun ba tax ñu ñu koy koy ñaata ñaata. daal la ñu paaweel fii ci gaara dix mètres ah defal ñu maison kii loolu nag des personnes particulières sax mën nañu ko liggéey. donc yaa ngi compté comme yaa ngi compté rek comme yaa ngi compté rek dèjà mënuñ def. ah déedéet ah kenn mooy falu boo jógee fii pendant cinq ans doo def dara képp ku falu rek balaa cinq ans di nga au moins di nga fi mën a def dara mais séntu woon nañu lu ëpp loolu parce que commune de Ngor li mu daan versé ville de Dakar. lii ville de Dakar daan profité ci ngor par rapport à. Euh, dina dina dinaa ñëw foofu dama bëgg après boobu ñu dugg ci bu baax ak acte trois bi am na ñu ci dégg am na ñu dina dina ci ñëw. waaw ah, ah, ah, donc maintenant dama bëggoon rek ñu wax ci. législative euh, bi gis nañ foqati bi nga xam ne moom lañ bëgg a foqati. Eh, eh. nga ñëw Dakar ci ci. ah déedéet déedéet boo waxee loolu duñ jubboo ma nag yow parce que ñun foqatuñu dara. waaw hmm. yoon moo ñu may ne dañoo gañe te dañoo gañe gañe bu wér. du dara la ñuy foog. non na su ngeen taxee ngeen ne sur les a gagné siège yi donc loolu tam ça devient benn affaire la. ah nekkul benn affaire ñun noonu la keneen gagné Yoff noonu la keneen gagné eh, Plateau noonu la keneen gagné eh, Parcelles noonu mais est yow est en tant que. ma ma yokk ci ne Médina bi nga xam ne ñoom ñun dañ ko perte nangu nañ ko dañ ko perte mhm. waaw mais comme ñi nga xam ne dañ ko gagné de dañu nangu ne ñoo ko gagné. surtout euh, warul am benn benn coow mais politique Sénégal moo demee noonu élection yi bu pare foog ñu ne dañu foqati lii ñii dañuy sàcc dañu publicité sàcc ñu dara. ok waaw mais ñoom peut ñoom dañ jox tam ay chiffres yu leer ah. donc beneen bi ma bi ma bëgg a laaj mooy soo gisee euh, élection bi lu mu demee scrutin yi lu mu demee da nga gis li sax day yor kartam ñëw ñu ne ko nekkoo ci bureau de vote yi est-ce que gisoo na loolu ñu demee ba nga xam ne tey Sénégal ak fi ñu toll si démocratie mënuñu voter également mënuñu voté aussi tamit xam nga ci transparence ak yëpp donc est ce que gisoo ne recul démocratique bu mag ci Sénégal. non non mun mun ma wax ne c' est un c' est un recul démocratique mun mun ma wax loolu mun ma wax loolu dans la mesure que ne c' est une œuvre humaine waaw ah, lu ñu commencé ci kii di defar ah, donc euh, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite dañ koy parfaire rek voilà lu ñu tàmbali ñuy tax tax avec le laps de temps bi nga defee man mën naa wax ne les gàcce gaal mais mais lan moo ñu forcé à ce que ñu ñu taf tafee noonu comme ni nga taf tafee. du question taf tafee parce que boo ko defaloon ñu ne sànni nañu élection yi déplacé nañu élection yi mais ñun ñëpp ay Sénégalais ñu xam nañu gars ni ñuy fonctionner. waaw loo def toujours quelque chose son contraire. ah mais c'est ça le drame de ce pays là dañoo waxante dëgg rek yàlla sax bu ñu ko defaloon am na foog ñu tàmbali foog ñu am fu ñu tàmbalee suñu tàmbalee nag di parfaire je suis persuadé qu'avec le président du am parce que dama toog mu dégg ma wax mu wax ma dégg. waaw ah, mais non non mais Sadio Moussaouma je suis désolé quand vous me parlez de refus démocratique mu wax man mënu ma gëm ñu ne benn adversaire potentiel boo xam ne mu ngi fi ñu jël ko tëj ko si kaso bi ba pare waxtuma ñu ñëw élection yoo xam ne da nga sa carte nga ne fii ngay voté ñu ne la déedéet yow sa gis nekku ci sa tour nekku ci liste électorale loolu nga loolu dafa yomb topp sax boo ne ma seen adversaire ñu maanaam nous nous bëgg rek ñu dissocier euh, lu tax ñu tëj ko euh, loolu nga xam euh, ça appartient à à la loi c'est à la loi de de de de se prononcer là-dessus du ma ci sori mais quant à l'élection mais ça n'a rien à voir man ñu tëj ko. mais la ndaw est-ce que est-ce que élection bi moo tax ñu tëj ah mais à la proche des élections lañ ko tëj. mais xam nga rek le dossier là. Ah.

loolu kees yooyu moom mën nañu ko am mais man aw ma ko. mosuma ko am mais am nga secours que yow commune nga moom maire de ville la. Hmm. cest dire quand on de quand on de secours mooy yi nga xam ne yéen ñi nga xam ne maire commune bi. Hmm. mu ngeen ko yor hmm. mais mais kees d'avance mais da laa ville war ko mën a am parce que président lu muy amee kees noire di dimbali nit yi. mais da laa ville aussi tam war a am kees d'avance di di di di dimbali nit yi. waaw d'accord mais ah, encore faudrait man je suis conseiller municipal à la ville de Dakar am ko na yàgg na mu

ñun ñoo koy yëkkati may ko jàppale ko population bi tabaski ak korite yooyu jugee. vraiment am na mais sagal yéen yéen a ko mën a am. yéen nga xam ne dañuy préparé budget moyen par bokkul caisse d'avance ak euh, secours ça n'a rien à voir c'est autre chose la caisse d'avance suppose que ne boo ko defee da nga ko war a justifier parce que boo budgétisé ba mu nekk sa nomenclature budgétaire. nga budget ko génn ko da nga ko war a justifier bokkul ville de Dakar am na secours aux indigents am na ko fii am na secours aux indigents peut-être ñoom ñoom am nañ def nañu ko mais ñun en tant que conseiller man xaw ma ko gisuma ko mosuma ko gis. donc quinze d'avance bi suñ ko laal dañ ko war a justifier. absolument kon yow da ngay condamner Khalifa fermement. waaw non non de question condamner c'est pas à moi de condamner ou de ne pas condamner. non je ne dis pas que yaay condamné. mais déedéet si say wax quoi. déedéet déedéet su may wax mooy li may wax j'ai été clair je suis clair. Les mois, moi » la ville je suis euh, conseiller municipal à la ville voter, caisse d'avance. ok c'est clair je suis clair. mais quand tu as euh, c'est à moi de juger ça. Mhm. je ne peux même pas me prononcer là-dessus. Hein? déedéet parce que rek. non non non mais yéen attends man dama benn problème. Euh, vous les affaires yi c'est benn bokk yaakaar quand on parle de xalifa da ngeen di changer air qu'est-ce qu'il y a de suñu waxee xalifa rek ngeen commencé changer bëgguma wax si moom bëgg lan la. waaw non non. parce que quoi. non non ci tënk non non non rek ak loo ah, man dama lay ko jàpp nii ku baax mais la mu def nag c'est ça son son problème ah man su ma casse pas là-dessus xalifa nit ku baax la ah. Bon, j'ai eu à travailler avec lui. Mais le modèle, c'est son problème. Man, ça ne me concerne pas, ça ne me regarde pas, donc je me Voilà. mais loolu moo tax boo gisee ñu kii nii rek c' est que lu mu ñu wan la quoi lu mu ñu ji la mais la muy def sa gannaaw c' est pas mon problème man je sais pas. ok waxtu Sénégal kii na leen def na leen surprise ah. mais benn surprise def ñu benn surprise. non mais attends. non mais c' est à dire non man dama benn problème la ma du ngeen nangu. allah wa xam bu xamante que du ñëw. xam nga allah si ñëw. ak lu ma am yëpp nga ne def leen surprise. xam xam xam nga lu tax du ñu nangu. parce que le Sénégal yi ñoo ngi commencé mûrir bu baax xam le mhm. hein? même si au niveau de la population Après, on a un truc là de cœur. non une question de cœur dafa am non dafa am électorat ci Sénégal. non non c'est vrai mooy li ma wax. non affaire sentiment. c'est-à-dire que ñoom ay nit dañ ko yërëm. ay sentiments mais loolu rek la du leneen. non mais du leneen parce que Sénégalais yi bu ñu analyser rek xam nañu ne Abdoulaye Wade actuellement mënatuñu apporter dara. non ci déedéet déedéet déedéet. mais loolu est-ce que nekk waxu waxu opposant moo. non non du waxu opposant. Abdoulaye Wade mënatuñu apporter dara. la preuve balaa balaa une semaine dem na Versailles jaaxal toog jàpp ñaamuram pare na ci Sénégal fi mu ne nii

man Sénégalais buy jóge fi rek parce que dara ak soxal na la nga ñëw réglé ko demaat sa Versailles pour man do sax Sénégalais voilà. considérons avoir Sénégal. non non non je ne les considère pas comme des Sénégalais. ah bon non non non pas du tout les Sénégalais ils sont là ils vivent là hein

non non non bëri na déedéet waay waay. exilé woon Karim. waaw dañ xalifa. mais mais ñoom. nga xam ne c'est des deux potentiels yoo xam ne war nañu. waaw loolu loolu loolu. àtte leen ko. waaw loolu c'est c'est comment dirais c'est il il y va de leur responsabilité de temps ñu bañ leen. ñii yaa ñaata a yi ñoom. lu tax ñu exilé Karim. dama nàkk rek Karim fekk exilé wu ko. ah lu tax lu tax ñu. moo exilé boppam lu tax ñëw. non non non moo bëgg a ñëw. non mais ah. Sénégal ah, Karim Kane dara ko Sénégal. pourquoi depuis que quand on parle de Dilbane. ah mais. ah, ah yo, da yaa ngi may laaj nu mu xam. non mais yaa ngi ëpp information. déedéet bu ma sur certains trucs amu ci benn information. ah bon Vous bu vous bu fàtte man je suis nouveau dans dans cette politique là man maa ngi doog a ñëw. Hmm. à la limite sax je suis pas un grand politicien. Hmm. parce que man dama lay wax rek li nekk ci man. mu hmm. dëgg laa lay voilà parce que man du ma politicien convaincu déedéet.

non mais grand non yow ba ngay jël commune bi ba ngay jël commune nekkoon kon yaa ngi da nga transhumé ñëw affaire. déedéet mu wax transhumé je suis pas transhumé man. man sama chaise sama fauteuil bala may toog ci mbokk néew moom ci benn baat. moom laa la wax ni xam nga yow population bi ñoo jël la. waaw indi la ci mairie bi. waaw donc nga toog nga ne leen kat ni ngeen ma indee ci mairie bi kat doyu ma. Hmm. parce que lu ma bëgg. ah man damaa bëgg di fees sama poche di fees samay compte. ah di mën a voyager am nangam nangam kon foog nga ñëw ànd ak ah, président nga transhumé ñëw ànd ak ah, yaa ngi may sànni kay dëggantaan bi non loolu taxul ma transhumé dama rek faut être réaliste parce que ñun encore dañu yàgg di contre pouvoir et contre pouvoir je pense que ne uh, du ñu apporter ben ben benn njëriñ ah parce que euh, c' est le pouvoir qui a les pour que ñu mën a liggéey suñu bopp donc man bi ma toogee fii et que ma xam ne bu ñu de président daañu mën a jàpp ci dëkk bi mën a liggéey dëkk bi. foofu laa gën a ànd ak président ah. intérêt quoi ah intérêt dëkk bi. pas seulement intérêt. nan la si dëkk bi gisee boppam wax ñu yan réalisation yoo xam ne ba nga ba nga transhumé ba comme yow transhumant nga ba nga demee ba tey. waaw mu waay transhumant man du ma transhumant. ah transhumant mooy ku jógee ci parti kenn dugg ci parti. non nga jógee société civile dem ci parti sax da nga transhumé parce que mënoon nga yem société civile parce que société civile la ñu jël indi la ci mairie bi. waaw mais bu ñu ma jëlee woon bu ma jëlee woon société civile ga ma ne woon bu ma fa toogoon nekk di sànni xeer waa euh, gouvernement bi di leen sànni xel bu dégg cëg mais duñu ma jàppale ci dara tey jii ñoo ngi nii di gazone suñu stade de football ñoo ngi nii di am lycée ñoo ngi nii di am maison de la femme. mais loolu c'est le minimum quand ah, même. ah c'est le minimum en combien de temps. non loolu c'est le minimum en combien de temps. mais non a non vingt et a siècle a nekk. waaw ah, mais kon kay pour man loolu c'est le minimum. non c'est pas non su fekkee loolu mënul am kon on a de dire émergence émergence bi ñu wax Sénégal. waaw bu ñu a ba fu a nekk nii. ngor mënul am. Euh, ah, état bi am kon kon kon kon nangu nga ne émergence am na. non ko yéen a koy. Ah, a koy. ah yow rek nangu nga ko bu fekkee ñu ngi frôlé di wax émergence. Ah. émergence donc su fekkee dem nañ ba fu nekk nii état de ngor mënul am gazon synthétique wala gazon donc pour man émergence boobu mën nañu. waaw mooy li ma la rek kon yow nangu nga ne émergence am na parce que bu émergence amul woon gazon bi du mën taxaw. Euh, lii si du mën taxaw kon comme ni ngay woowee ñu transhumé dem ci ci ci président Macky. non pour mën a am yooyu. waaw wax na ah déedéet. ah, ah kon moom noonu nga ko defee. Ah, ok ah, léegi ñu ñëw ñu ñëw ñu ñëw ci commune bi ah. ñu ñëw ci commune bi. Euh, monsieur le maire tey euh, def nga juróomi at. ah yaakaar naa trois def nga trois ans dafa bëgg nga trois ans il vous reste deux ans. donc soo leen def seen bilan par rapport ak euh, trois ans trois années yu passées lan nga ñu mën a wax. ah li ma ci mën a wax rek mooy ñoom ñu góorgóorlu je pense que am na ay jéego yu bëri yu ñu def ci. ci dëkk yi euh, suñu fi développé ay jéego je pense pas que ne daañu gagné élection yi génn. lii rek bu baax ngeen nekk. loolu déjà bi duggoon ngor ñaata la. non xam nañ xam nañ budget bu duggoon ngor ci résultat bi. Ah, déedéet déedéet ay budget xam nañ ñaata moo duggoon ngor. déedéet déedéet li duggoon ngor moom moom la parti yëpp ah. ah, li duggoon ngor 15 millions. moo ko tax ma la wax ne ñaata moo dugg ngor. ah léegi wax kon non non soo dindee ñaata bi teg dara. matul 15 millions moo dugg ngor. déedéet man de 15 millions de bàyyi li ngay wax déedéet du ma la ko wax. mais man de 15 ah léegi def moom du ma la ko wax. mun nañ jàpp ne 15 millions. déedéet déedéet déedéet 15 millions dugg ngor. ñaata dugg ngor non nañu waxante dëgg rek yàlla sax bari. 10 non jarul millions duggul ngoon. ñaata duggul ngoon 10 millions sax duggul ngoon. voilà 10 millions sax duggul ngoon. boo duggee rek pour vous situer la fourchette rek 10 millions sax duggul ngoon. ak ñun ñaata nga teg man teguma ci dara. non mais attends. teguma ci dara. ah teguma ci dara. kon yow jàppale woo affaire ci ci ci financement yi pour que ñu mën a gagné ngoon. ah pour li ñu doon def pour campagne daf ñu a et pourtant amuñu si gis seen bopp ci population bi. ah soo bëggee ma tegal la bande bi am na ñu wax ne gisuñ seen bopp si sa liggéey bi ci campagne et tout. gisuñu si seen bopp quoi. ah <laughs> mais dañuy liggéey pour mbooloo bi yëpp. wala dañuy liggéey pour ñu ñuy jël def seen poos. ah waaw mais attends c'est-à-dire bu fekkee da ngeen am ñenn ñu ngeen di jël di jox ak ñu ngeen. ah jël jël jël ñu xaalis ah. pour jox nit dañu jël xaalis pour organiser élection yi pour nit ñi ñu togg ñu lekk.

waaw ñoo ngi euh, ñoo bale tali yi tous les koy bale ñoo ngi embauché ñu ngi ñoo ngi liggéey ñoo ngi nettoyé plage ñoo ngi organisé bon ñoo ngi def ay pavage ci biir bi ñoo ngi euh, on fait des tas de trucs on fait des de trucs ah lépp ñoo ngi defar école arabe bi ça c'est la commune qui est en train de c'est-à-dire bu ñu nga wax yëpp dégguma nga wax moom santé éducation mais santé xam nga ñaata laa par par par mois ah la santé mu coûte dix neuf par mois

amul luy xew ci dëkk bi di ko taxaw bi mais mu jàll man mu ma ñëw léegi nii si yoon bi ah, ah. Euh, man ak sama caméraman bi ñoo ànd mais dañoo tëb ci ndox yi ndox yi salte yi est-ce que est-ce que yow xanaa doo ko jàpp si lay jaar mais bëgg ma saafara bi waaw saafara a c'est il faut parler avec Allah euh, l'ONAS on est en train de le faire léegi c'est ce matin sax da nga fekk may préparé euh, waa agiti bi i pour ñu seet nan la ñu mën a pour la couverture des canal bi nan la ñu ko mën a a léegi léegi sama temps rek dama fekk may prévoté pour loolu loolu daal moo ma desee man su ma ko defee ma xam ne daal def naa jéego yu bari yu rëy ci ngor loolu rek de football le lycée ah ku mën ah, ah, ah, a def waaw ak li may jox hôpital bi ak yi xaalis waa Ngor ñi ñuy commencé am embauché si ab ci hôpital bi et c'est la mairie qui paye waaw après ça dama naan ku ñëw rek waaye dimbali ma rek nga def ëpp loolu. ñaata ñaata embauchement nga def ba nga toog ak yooyu. Hmm. ah ça c' est chiffre en centaine ah léegi de ça c' est chiffre en centaine ah. loolu waa Ngor yëpp boo taxawee fii ci garage nga taal micro ñoom ñu wax la ko du man maa koy wax dama nga laaj waa Ngor waaw. Euh, wax nga si sànq plage bi aménagement bi affaire yooyu nu nu nu muy demee parce que gis nañ ne bon plage bi ça. ça c'est l'intervention et tout ça. Donc est-ce que le euh, Comité du Mont est en considération euh? Non, non, non, non. En fait, il y a un comité qui gère ça. Même un salarié, nous, nous, pas. mënoon na cent franc jël na ko wala deux cent franc. mais en tant que maire. déedéet mënoon en tant que maire wax naa la c'est un comité qui gère ça. bon man je ne peux pas ci làmmañ. non mais est-ce que yow am nga fa accès. déedéet am naa fa accès ah mais je je je am naa fa accès. non mais attends non c'est-à-dire quand bu fekkee ne bon c'est la commune qui dirige ça. le maire doit de tout ça. de gestion. il y a un membre, c'est pas la, la mairie. En tant que la mairie. quand même mairie, quoi. Si, si, si, si, si. attendez, laissez-moi vous expliquer. Il y a un comité de gestion qui s'occupe de ça. Quand le comité de gestion gauche euh, euh place il y a deux représentants de la mairie à qui ñoo gérer mm-hmm. mais la mairie ne gère pas directement cette affaire de plage là mm-hmm. voilà après le plage, il est arrivé donc qu'on a nous nous-mêmes avec la saleté et tout ça. C'est pour cela qu'on a initié ça. Mais de l'autre l'enfant de Benji, ou Tralis ou le quoi que ce soit, en tout cas, nous, c'est que du bisou. D'accord. Malgré tout, euh, acte 3 vie, comme nous avons acte 3 vie, normalement, comme il dit, il n'est qu'en plein exercice. Quand vous me dites que vous avez fait 200 millions, c'est décevant. L'acte 3, c'est une œuvre humaine, une œuvre humaine, mais parfaite. C'est une commencée. ñu koy tax diggante fan rek. kon d'accord nga ak trois bi baaxul. ah déedéet j'ai jamais dit ça. Hmm. ah li ñuy parfaire ak lu baaxul c'est non c'est-à-dire nga xam nga tey yenn commune je prends l'exemple comme ay communes yu mel ne ay Yeumbeul Nord ay Yeumbeul Sud et cetera nga ne xaw naa ko maîtriser tuuti donc parce que waxtaan naa ak seen maire ak trois bi dañu naan bàyyi seen mais quand on va ici euh, commune de Ngor ak lu fi nek ci ci hôtel lu fi ci ay station ay etc cetera et cetera ay ressources yu vont a ci commune bi bu fekkee ne yow sa budget ba tey mu ngi toll non ça va changer ça commence à changer parce que foncier bâti dans le si grand chose mais ça commence à bouger. En le projet parce que c'est la ville de Dakar qui prenait ça justement mm. voilà pour en revenir à ça foncier bâti d'Ao, on ne touchait pas un centime du foncier bâti c'est que la ville de Dakar mm foncier bâti Ngor ville de Dakar di ko jël waaw te lu ci lu Ngor à l'époque même maison des des associations c'est un truc d'une centaine de millions et quoi et la finition des des hôpitaux C'est pas normal maintenant si la commune d'Ongor récupère son foncier bâti pour faut ngaa la commune d'Ongor est une commune riche voilà. donc il y a rien à ah oui c'est en cours même je pense que ça à partir de l'année prochaine ça va. waaye effectif. d' accord monsieur le maire bon maa ngi ak euh, maire donc gis ngeen ah. suma waaye suma xaritoon vraiment ñu ngi. <laughs> <laughs> donc vraiment gis ngeen li ngeen xam ci moom pratiquement yéen a koy yéen a koy xam bon. <laughs> Euh, euh, bon monsieur le maire ñaata oto nga man ah. ma xool asaan dama koy wàññi parce que travail avant de venir ici. je suis un homme d'affaires avant de venir ici. j'ai mes propres affaires avant de venir ma xool ñaata oto la am quatre wala cinq ah je suis boulanger kon nag damaa fay oto si quatre voitures à la boulangerie. ah man ah pour réaction du maire. ah yàlla yàlla xam yàggul ñu deux mille dix neuf bu ñu yeggee deux mille dix neuf ñu xam su suñu bilan positif ñu mën a lemaat te ñi waa ngoon ñu jàpp ci ñu ñu dem toog suñu buntu boulangerie rek jàpp suñu. waaw lu ñu a yokk parce que fi wax ni moom c'est minime par rapport ak commune bi mun ci def ay situation hôpital nag c'est minime quoi. ah loolu bëgg ñu def ko. non war nga mën a yokk loolu quoi su fekkee fi nga yem moom. Ah. mun nga mun nga mun nga bañ a xaar deuxièmement. <laughs> waaw d'accord d'accord li ma mën rek laay def. Mm-hmm. li ma mën moom naa ko foog naa li ma mën. maa ngi koy def waaw Ngor xam nañu ne maa ngi def lu ma mën. d' accord mm. looy tàggatoo monsieur le maire ñu ngi woon fii ah Ngor donc ñu bàyyi ko mu tàggatoo. waaw euh, maa ngi lay gërëm di la sant bien que sànni nga may xeer xeer <laughs> donc maa ngi lay gërëm di la sant mais daal li ma la mën a wax daal mooy euh, waa Ngor daal euh, je pense que ne ñun ñoo ngi leen di xam nañ ne ñoo ngi leen di liggéeyal. loolu loolu moo ci am solo daal waaw ah, la li ñu ñi yenn yi li ñuy wax amul solo mais waa Ngor ñu xam ne ñu ñu ngi leen di liggéey loolu moo am solo waaw ah, exemple